amis téléspectateurs euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax amati mbégte contentement di jàkkaarloo ak yéen ci seen euh, émission bii di jotaay euh, yéen ñi nga xam ne nag yéen a tànnal seen bopp chaîne bii di Télé Sénégal ko seen bopp bi ñu leen nuyoo ba pare nag comme ni ñu leen koy defalee saa su rek tey nag fi gan gan gu mag di kilifa waaye nag kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal mu nekkoon ci benn milieu ci culture culture bi waaye nag dañoo ñëw gis ko ci leneen léegi léegi parlement xamuñu ba xam ne dañ politique. xamuñu ba xam nag euh, nu mu tudd euh, dafa daf fee nekk ngir askan wi euh, waaye nag ginnaaw mu ngi ni toog dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo bu ko defee ñu daal di doxal incha allah di ngeen xam Père Lamine xale yi nga xam ne xëy na xamuñu ko woon dinañu ko xam tey bu baax a baax ñi nga xam ne xam nañu ko itam mu ngi noonu muy du Père Lamine Ndiaye ñu ngi lay nuyu. man di leen fay. <laughs> di door ci bismillahi rahmaani rahim mhm. waaye di jiital ci nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké. sëñ Touba. Euh, di ci teg sama wasila di seen euh, sëñ na Mbacké bu sëñ Baara gannaaw ñooñu mhm. askan wi laa ci teg nga xam ne ñoom dañ ñu mës topp mhm. depuis bi télévision sénégalaise ubbee ba léegi ñoo ngi ñuy topp en 1972 ba léegi mhm. kon nag loolu lu yàgg la waaw mais terewul taxul ñu ñu ñu ñu bàyyi dañ daan def parce théâtre bi moom ci à vie xaw ma ndegam damay joué bu ñu suul ma xaw ma ndegam ci scène bi la may fekk bàyyeegoo daal bàyyeeguma mm. mënuma ko bàyyi parce que ndax du bàyyi yoonam waaw te loolu philosophie bu mag la mm-hmm. ndax ngëm-ngëm waaw dafa nekk tollin parce que jaar naa ci xuus ba ci télévision scolaire mm-hmm. donc mënuma tëb tëb ba di def émission émission scolaire mhm. euh, nga xam ni télévision lañ koy def muy euh, télévision scolaire bu mhm. Sénégal dans jamono ji mu ubbee mhm. dañ ma daan woo pour ay application yu may def foofu maanaam bu nekk dañuy génne beneen sujet dugal grammaire bi dugal orthographe bi dugal tamit vocabulaire bi nga xam ne nii lu rëy njàng bu rëy la sax télévision scolaire Uh-huh. njàng mu rëy la xamu lu tax léegi dañ ko bàyyi ou pas. Uh-huh. ma def fa ay application yu bari application du dara lu mooy émission yoo xam ni yu bari la mais basé sur euh, euh, la grammaire. Uh-huh. l'orthographe l'orthographe la conjugaison et le vocabulaire. yooyu lañ daan jël toj ko ci ay baat. wala génn ko missaal ko ci xam-xam boo xam ne nii boo ko seetaanee. ne mu lay yeddee noonu la lay jàngale soppi woon dara ci théâtre bi ñu doon def parce que théâtre boobu sax daf lay dimbali ci loolu man bu doon sama sago mhm. xale yi nga xam ne ñu ngi soog dugg école mhm. ñu nekk CI wala moo xam ñu nekk euh, jardin mhm. dañ ci théâtre mën nañ ci jaar ba jàngal leen loo xam ne nii xam-xam bu rëy lay doon. lay lay la amal njëriñ. loolu su ma doon su doon man maa nekkoon ci gouvernement bi loolu dinaa fexe ba nga xam ne nii foog mu jaar mu am. d'accord ñu woon ko télévision scolaire. incha allah alors xam euh, naa loolu dinañ ci ñëw mu di. Euh, théâtre ndax euh, Sénégal kenn du fi tuddati rek. Mm-hmm. mbirum théâtre sa doo ci boole Père Lamine njaay mm-hmm. waaye balay boobu la ma waxoon sànq dama koy waxaat fi mu ne nii Père Lamine dañ ko gis ci leneen Père Lamine xam nga day politique. xamuñu ba xam askan bi la fi nekkal xamuñu ba xam boppam la fi nekkal euh, loolu la la mooy sama première question Père Lamine euh, da ngay politique wala askan bi ñoo la ñor wala bëgg sa réew la wala sa bopp ngay lijjanti. Euh, li may def dafa méngóog politique. Mhm. parce que théâtre bi sax ci boppam foog nga am politique booy jaar pour mën ko teg ngir askan wi. Mhm. génn guma ci ngir askan wi ba léegi. ngir askan woowule dangay dem dema dema dema dem ba bés nga ñëw rek dugg ci benn mbir boo xam ne day jaaxal nit ñi parce que dañ naan kii waaw dafay ñëw léegi politique wala daan parce que dañ ma gis ak jëmm ji ñuy wax Sonko Sonko wóllëre moo ñu boole man doomu lakkat la moom it doomu lakkat la ma yaakaar ne ñaar ñu tase ngir lakkat même bu dul loolu sax la ko omat sama kër d'abord ca lay njëkke pour di ñi xam ko xam ne fu ma toog di ko défendre wala may défendre euh, lépp loo xam ne politique am la wala mu am sax jote boo xam ne jote na ko nit wala ñu ŋàññ ko je suis prêt à expliquer parce que sama doom bi nga xam ne nii sama doom bu jigéen la moom la yëkkati may ko benn xaritam bu tudd Babacar Mbaye mhm. waaw ñoom ñaar ñu nekk nekkin bu rafet donc mënuma lu mooy loolu li nga xam ni dugaloon na ko sama kër ma béy ci loo xam ne nii dama koy delloo njukkal parce que kooku bu fekkee woon fa woon suma doom noo xam ne nii jekkul rafetul du ma dugg ci loolu parce que dama naan ñoo yem waaye nag mm-hmm. yemuñu mm-hmm. parce que jikko bi ma njëkkoon a seetlu mooy moom loo ko yëkkati may ko dalay laaj foo ko jële mu di kan moom Sonko waaw. maanaam daal loo ko mën a jox dina la laaj. foo ko mënti jox mu laaj la lii. fu mu jógee fu mu jógee laata muy nangu. xam nga loolu lu tax. Mm-hmm. parce que bëggul lekk lépp loo xam ne nii wala mu am loo xam ne nii ca dëgg-dëgg ameewul ci yoon nga yëkkati jox ko ko. Mm-hmm. kon donc ku mel noonu bu ñuy dugg sa kër ba yëkkati sa doom nga teg ko ci loxo moom mu ko maye da nga ñëw ñaanal si ko xaritam. Mm-hmm. doo def lu mooy fasante coloré ak moom surtout boo leen seqee loolu vraiment pour man c'est trop fort. Mm-hmm. ba nga xam ne nii lu ma dégg ci moom te jaaduwul. Mm-hmm. wala ma xam ci dara. bu dee défendre ko je suis prêt à le faire. d'accord kon yow su ma la déggee Sonko seen relation yéen ñaar jiitu na. kon coow yi ñuy wax yëpp. bu baax a baax a baax boobu amuloon sax coow boobu duggul woon sax ci politique. d'accord kon lu donc kooku loolu yàgg na. Mhm. màgg màgg màgg ba léegi dugg ci politique man xaw ma ne woon ne da doon dugg ci politique sax. Mhm. parce que dafa mës a ñëw suma kër bés mu ñëw fekk fa Djibril Gabi Guèye. Mhm. Djibril Gabi Guèye ku ne xam na ko ci euh, politique moom it parce que PAI yi la nekkoon. donc euh, membre bu PAI yi boo ca nekkee xam PAI yi lan moo doon ay chattam ci politique foog nga bëgg ko nga ciy wow koŋ te kenn mënu la da ngay dem dema dema dem ba en matière de discussion sax naan kii dafa jafe te du jafe hmm. day défendre ay idées am ay cause am boo mel boo nee moom c'est tant mieux boo indi ay arguments yoo xam ne nii euh, c'est valable hmm. kon donc lui moom dalay daan ci wax dañ daan toog une nuit entière man ak moom di discuter de politique waaw ñoo daan bokk nekk tous les jours il était à la maison constamment fale añ des fois day teelu jóg këram ñëw bàbbee suma kër ñu toog bokk ndekki euh, déglu musique mm-hmm. comme li ko ñëpp a xamee mm-hmm. parce que man def naa sept ans de musique aussi. kan may def théâtre a commencé musique ma def musique ba xóot ci parce que maa ngi woon Sëwru Baabu Louga. nga doon def salsa wala wala. salsa ak lépp kay moom. <laughs> Euh, ah, lépp la nga euh, kii boo xam ne mm, du ma ko fay parce que bu ma amee suma instrument soo ma woon guitare. Mm. ce serait beaucoup plus facile ma woon leen ci as parce que damay jouer guitare en même temps. damay jouer batterie jouer tumba. percussion donc yooyu yëpp dama koy def sabar bi sama ma koy tëgg ci ay da sukka ay da waaw sabar ba ci boppam maa ko tëgg ba mu jeex wallaahi maa ko tëgg ba mu jeex daal ñii seetaan seetaan ay voilà ngoog loolu gëstu ba sax dama ci bokkoon mhm. façon ba ak bind ma nga xam ne nii xalaat yi la ñuy génne ba pare bind ko parce que daal woon def dara loo xam ne nii du ñu jaar ci bind parce que bind bi daf ñu daan dimbali bind bi moo ñu indi ci gëstu gu yaatoo yaatoo dugal ci xam-xam boo xam ne nii xëy na sax bon nit ñi duñ ko xam boo leen koy expliquer mais xam-xam la bu bokk moo ñu ci théâtre mu wékku nag ci li ñu tuddee la règle des trois P pensée parole et plastique loolu mooy tekki théâtre ku la wax beneen tekkin day wax lu ko neex mais pensée parole et plastique kooku mooy tekki théâtre waaw ñu ñëw foofu waaye ba léegi dama bëgg ñu. kon maa ngi lay xaar euh, ci sa xarit. sa doom sax laay wax mu di pro dañoo gis ne da ngaa jël engagement yu mat ci moom wax nga ko léegi sax. Mm-hmm. pare nga pour défendre ko si lépp. Mm-hmm. ana lan nga gis ci moom ak confiance bi nga am ci moom ba ñëw rek ne moom la. pour man euh, soo gisee xale yi di ko wax naan nit ku sell ki dafa set ci jikko. Euh, du rambaaj. du la wax mukk lu nekkul ci moom te lu mu la wax booy boo nga fayoo ko bor xam ne dina ko def. loolu da waaw kay xam nga loolu moom bu nekkee ci nit looy soxlaati ci moom. suma ko nit koo xam ne dëggu na ba nga xam ne li nekk ci moom la lay wax. Mhm. du la wax mukk di neexal. Mhm. wala wax la di la taggal say maam. Mhm. da lay wax wax joo xam ne ci dëgg la ko teg waaye wékku ci jub. donc loolu boo ko gisee ci nit jël ko xarit euh, li muy xale tamit euh, il m'a toujours donné en fait ce privilège là parce que pa bi la may wax wala euh, góor gi mënu ko naam mu ne ma ah, mag nga léegi mhm. donc franchement am na yoo xam ne nii ñun ndaw yi ñoo ko mën mhm. je te prends comme exemple am na bés mu ñëw sama kër seet si mhm. <coughs> bi mu ñëwee ma ne ko man de li ma gën a bëgg mooy nga jox ma ci seen 4x4 yi wala benn oto rek. <laughs> boo dawal. ma yow lu nekk laa def dans ma vie. Mhm. ba mu des sàcc. maanaam oto boo dawal nga ko xam ne. man amoon naa oto dama ko jaay. parce que damay dema dema dema dem ba dawal bi sonal ma parce que. Mhm. Euh, koo tasel mu ne la doo yóbbu ba fii rek nangam nangam yee des fois yi ñu fekk la nga tëdd sa kër. Mhm. ñu yeele pour nga yóbbu nit te man am na yoo xam ne nii buñ ko sollicité ci man mhm. damay natt sama bopp ne kii war naa ko jàppale aw ma maqaama dimbali nag loolu la Sénégalais yi xamul fii mhm. damay dégg tout le temps diw maa ko dimbali diw maa ko dimbali pourtant ba bu ñëwee ci man bu mu ko dimbalul woon nangam nangam ma di leen tere loolu ni ndimbal yàlla moo ko moom mhm. li mu jagleel nit mooy jàppale ko nañu bàyyi di wax ndimbali diw maa ko dimbali day wax diw maa ko jàppale parce que yàlla moo leen boole dimbali leen ba nga jàppalante ba ngeen jàppalante du mooy sax mhm. parce que yow da ñëw moom mu ñëw mhm. ca soxla yi mhm. aajo yi ci lépp loo xam ne nii boole na nit nit man loolu laa xam ci loolu lañ ma yare parce que doomu lakkat la bambara piir la sant jara dañ naan ma njaay rek mais jara la jara boobu moo waxu ba Casamance doon fa jaata bi ngay dégg. njaay jaata. ok dégg nga ko ba tàyyi. ok waaw kon nag euh, boo. xamee waaw kay. mais turu Lamine bi sax nekkul ci samay kayit man Mouhamadou lañ ma tuddee. Mouhamadou yonent bi ci boppam. su ma demee bay taamu nit damay seetlu ay jikkoom. Mhm. su ma demee ba ñuy nekk ci ci boo xam ne nii euh, jaayante ngor la. Mhm. tur woowu dafa màgg ci man ba nga xam ne nii loolu la ci loolu lay xool ba lépp loo xam ne war na ci suma diggante ak nit ki mhm. euh, su ajoo jàppalante ma jàppale ko d'accord d'accord mais bëri na li ma gën a jaaxal mooy euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci aar bi mooy ci li nga nekk ñu xam la ci mhm. euh, ñi nga xam ne daanaka Père Lamine bu ñu ko xamee théâtre moo tax ñu xam ko dama gis ñu bëri ñoo xam ne dañu nekk ci aar bi mais yow comme ni nga ñëwee jël ne rek ne Sonko la ñoom dañoo jaar ci beneen bët gi parce que d'habitude dañ naan euh, ñoom dañoo yaakaar ne régime bii nii arrangé wu leen ñoom yow ana lool lan nga ciy wax. non xam man je ne suis pas un donneur de leçons. ok parce que je respecte leur choix. Mmh. parce que démocratie dama ko gëm. Euh, ci samay amitié sax mmh. ni ma amee part de responsabilité pour sàmm amitié boobu yow ñoo ko jàkkaar lool yow def naa ne tu as la même responsabilité sàmm loolu. Mhm. ñu jaayante ngor. te man du ma ñàkk mukk ba ñànki. jëfu gor waaw kay ma ngoog. Mhm. man yooyu valeur yooyu soo ma ko jaaree yaa ma ko yaa ma moom. Mhm. ba tax na tey comme ni may seeyee jigéen. mënuma tëb euh, tëb di ko trahir wala di jaar ci xuloo formaliser ay kii maanaam dugg ci fen ba yàq sama diggante yàq ko moom moom mu wëlbatiku di ma yàq loolu nekkuma ci franchement en toute sincérité mm. surtout ak teraanga fii lañ ko fekk waaw dañ ko bëgg ci en affaire mm-hmm. mais ci diggante la gën sosu mm-hmm. boo ko dugalee même ci ay xame nii bu ko kafee na doon dëgg ci yow bu ñoree ci yow rek parce que nit ñett la xel la xalaat ak xol mm-hmm. fokk yooyu valeur yooyu ma la wax mu wow ci ñett yooyu xel xalaat d'abord ak xol xel xel xalaat xel nga teg ci xol mais ñett yooyu ni ñuy ràngalee noonu xol moo leen ëpp doole foofu moo tax gis nga bu nit jékke-jékki rek dara jékki-jékki jóge rek dal ci xolam ni mu koy métti lu mu xalaat xalaat xalaat du ŋànki uh-huh. day dëgër ci moom ba nga xam ne nii duñ ko mën buñ ne ko expliquer sax naan ko non muñal nangam nangam du mun a muñ uh-huh. parce que xool bi mooy metti uh-huh. parce que dafa tëb xalaat xel wàll si ci xol bi directement te dañ ne xalaat ak xel teen la ñu xol ci la war a root bu fekkee di jiitu na xalaat jiitu xel nooy def il faut nga rangale ko ko yàlla bindee. te wax nit ki. li may wax ne mi ngi ci alxuraan. dégg nga bul jiital sa xel directement. lan moo jiitu. xalaat d'abord. xalaat dëgg la. tegu si xol soog a root. <laughs> loolu demeewul noonu. nga jékki-jékki lu ñëw rek nga fab sa xol jiital ko dékk ka d'accord xalaat soog a ñëw tardé xel soog a ñëw tardé mhm. parce que xalaat li mu lay may faram fàcce la mhm. xel li mu lay may moom mooy tasaare loolu nga faram mu mhm. mel ni nga tame suuf si nga tame pourtant yaa ngi dee mais foog nga bës ko nii mu wàcc daal di dugg ci roq-roq yi parce que la nga fa dindi bëggatuloo mu dellu ko fa te suuf soosu sax dafay aar. Mhm. ñu bari xamuñu loolu. suuf day aar. wallaay suuf day aar. dëgg la am na solo mu dàq lekk fii. suuf day lekk. waaw lan ah, nit bu duggee ci biir suuf du ko du ko lekk. Ah, lu mu des ci moom du du yax ya. <laughs> dëgg la de. ah, ah ma <laughs> ak ndox mi taw. lépp mooy encaissé. mais suuf la rek du du mu jéggi day doon ban. dëgg la te ci ban lañu sàkkal nit. dëgg la dégg naa dëgg. njëriñ la ci ñoom ñoom mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk. dafay am solo bi. waaw dafay am lool ci boo toogee ñoom ndax da nga ciy jëre njëriñ ak xam-xam tam waaye ba tey tamit eh, dañuy desandi tuuti ci eh, actualité ndax gis nañu sa waa ji fan yi yëpp eh, gars yi di ko ŋàññi si dafa war a wax dafa war a génn yow ana lan nga koy conseil gis nañu tamit bi mu génnee fan yee grand théâtre gis nañu yéen ñaar ngeen taxaw lu yàgg bëggoon nañu xam tamit lan ngeen fa jot weccoo ci ay wax. yaa ngi waxtaan ak moom ndax tamit comme waayam nga avant yàgg na lu yàgg la xanaa yaa ngi diisoog moom léeg-léeg ki ne ko lii danga war a def nii ak na nga war a def nii. Euh, yàlla na ma yàlla baal ci li ma xalaatoon nar ko wax. xam <laughs> nga dama tàmm di caaxaane benn wax woo xam ne nii euh, bu fekkee dañ nekk ci dëgg rek. Mm-hmm. déjà loolu dama fas yéene ba la lii ma doon naan léegi dama naan yonent yàlla ndox pour pourtant ñi ko foro daan yonent lay tax dend ndox mais boo seetloo philosophiquement parlant kii yonent la ndox bi li yàlla sàkk yépp te muy jëriñee te baax ay yonent la la ñu pourquoi yonent parce que day dundal nit nit fu mu jógee du ci ban mm-hmm. ak leer day ak mën na ci ban ak leer ak la leer leer waaw man ban ngi moom a gën a wóor moo la gën a wóor waaw d'accord may nangul nañ la ko li tax nga ni leer waaw parce que dañu ne doomu aadama dañ koo sàkk ci ban ak leer ba am ñu ne sax ban bi mooy waral des fois nit ki di moy waaye bu dee ci wàllu leer gi mooy waral muy jaamu yàlla gis nga leer mm-hmm. benn leer moo am ñaari leer amul ñetti leer amul leer bi nga xam ni nii moo am te muy dëgg weesuwul suñu borom mm-hmm. man du ko rafetloo ñu alloué ko nit ak di ko dendale ci loo xam ne nii ci composante nit yi la mhm. même bu fekkee ni sax wax nañ ko sama xel daal moo ko nanguwu ko nanguwu ko <laughs> am nga ci droit parce que leer bi dafa ëpp doole mhm. leer googu suñ boroom rekk la mën a firnde amul leneen mhm. léegi nag euh, am ñuy way di wax ni ay yonent yaa fi gën boo déggee yonent yaa fi gën du dara ñu ngi ko xalaatee ci leer googu nga wax mm-hmm. donc mu ne koy bàyyil parce que suñ borom leer gu mat sëkk la mm-hmm. la ren tuul te du mappandoo kenn mm-hmm. boo jàngee alxuraan defe naa ni am na yu bari ñoo koy dendale ak di ko misaalee yenn yi te da dafa am doole de trop moom dara dafa am mm-hmm. doole ba nga xam ne misaalee ko dara man de ñemewuma ko. Mm-hmm. xam nga ak leeram. Euh, ni mu amee doole moo tax ñu xalaat ne leeram moom bu ci dund woon toq bind ci doomu aadama sax du wàññi dara ci ak leeram moom munu cee wàññi dara moo tax ñu ne doomu aadama la gën a fonk ci li mu bind. man daal xam naa ni doomu aadama fañ ko bindee ci ban moom nga accepté yow fa laay yem. da yokk nag ak ni ko nit ñi xalaatee. da koy bàyyi moom waaw kay maa ngi koy bàyyi ak ñi ko wax ak les scientifiques. d'accord qui sont des religieux. Mhm. nga xam ni ñoom it lu ñu wax xam nañ ko am na fu ñu ko teg. mais man lu yooyu dafa ëpp doole parce que leer man benn leer laa xam muy yàlla ci boppam. kun fa yàkkun waaw kun fa yàkkun borom kun fa yàkkun moom. Euh, tekkil kun fa yàkkun tu verras que ni puissance am dafa am doole ba nga xam ne dañ koy méngale ci lu mu mënti doon ci àddina. man maa am habitude di tooñ daan ne kii day yoneen ci yàlla ndox mhm. yoneen ci yàlla suuf yoneen ci yàlla objet bu mu mënti doon mhm. di coon tooñee noonu waaye loolu dama ko fas yéene bàyyi parce que day wax la joo xam ne nii nit ñi buñ ko déggee mën nañ ko yóbbu foo xam ne nii xëy na yow mi ko wax xam nga tollin ba foo koy tollale foo koy yemale mais yàqul ci lenn loo xam ne nii nit ñi wax nañ ko te jàng ko te mu lu wóor ci ñoom man daal dama leen koy bàyyil. d'accord léegi yem ci li nga xam ne nii mooy ban. Mhm. ban ak ndox daal lañ wax donc ban boobu gëm naa ko. Ah, ndox mi tamit gëm naa ko moo tax dama naan toujours yeneen ci yàlla ndox ah, mais pour revenir sur Ousmane ko mhm. je pense que ñu bari xamuñu ko dégg naa ñu koy wax naan salafiste la. wax nañ ko. lu nekk yekk nañ ko. mais soo bëggee xam usman dëgg dëgg dëgg kii il li mu daj ci politique bi fii mburu daju ko ci dara. à dire vrai sans politique sans embâche. li mu daj fii ci liñ ko def bu amee xol sax ba ànd ak tuuti daal la. jàmbaar la. parce que man yàgg naa ci politique li nit ñi xamul xam nga temps BDS ak SFIO. waaw ah, loolu moom maa ngi koy soog a dégg. waaw ah, ma ko kon donc loolu na nga ko laaj mag ñi. nan nga ne PDS. BDS BDS ah. ak PDS. déedéet ak SFIO. ñun nag PS lañ am ak PDS. tàngul Lamine ak Senghor. bokk xëccoo bu metti ba. Mhm. avant Lamine di nekk député. en France waaw mhm. nekk la première personnalité sénégalaise mhm. boo xam ne ni ñoom Galindo ñu ci bari ci kilifa yooyu moom moo dem en France mhm. bi ñu France joxe suñu indépendance mu ne rekk waaye dellu si leen yéen ay sénégalais ngeen ba ci Senghor sax indaale na ko ñu ñëw fii Sénégal pour defar si Sénégal parce que pour moom il avait jugé que ni Euh, rafetul ay doomu sénégalais am njàng bu ñu tollu ñuy des bitim réew. nañu dellu si liggéey seen réew. Mhm. am na ci ndam amu ci ndam xëy na mii la lu gontu. Mhm. mais lépp lu muntu doon déjà acte boobu mu def rek dem jëli leen en France wax leen ne leen dellu si leen ngeen defar seen réew li may wax ni 1960 wees na ko. Mhm, loolu mu nekk loo xam ne moo sos politique wu Sénégal euh, jamono yooyu man mi ma fekk ma nekk ndaw mhm. daan dégg politique ni xëy na dugguma ci woon ba feeñ ci tey ni ma ci feeñee mhm. te feeñ bi ma ci feeñ li ñuy yaakaaree ni moo am danaa ko expliquer tey fii une bonne fois pour toutes. ñu bari dañu yaakaar ni dama bokk Pastef. Mhm. même su fekkee ni li may liggéey méngoo nag démarche bi sama jugement personnel am naa sañ-sañ boo xam ne nii lu raw Sonko sax mën naa ko gis ci moom bëgg ko di ko jàppale man dëgg ak jub rek moo ma itteel mais boo ko Pastef awuma carte parce que boo nee bokk naa c'est parce que la war yëpp pour nga bokk def nga ko dàquma nag ne am na kilifa yoo xam ne waxtaan nag ñoom mm-hmm. am na sax koo xam ne nii Sonko moo ma ko présenté te maa ko njëkk déy na ko dama bugg am sama carte Pastef mu ne ma dinaa la ko indil ba sa biir kër mm-hmm. ma ne ko est-ce que xam nga suma kër mu ne ma waaw xam naa sa kër mm-hmm. ma ne ko Médina rue mu ne ma waaw xam naa ko parce que ñëw naa fa te yëgoo ko ma ne ko man xaw ma ko woon sax quoi bon à partir de là mën nañ ma wax nii damay def politique. parce que waajee ma ko jaral. lu tax mu jaral ma ko wax naa la ko fii man tëbuma tëb rek ne Sonko la dama déglu waxtaanam. mu doon waxtaan ak Jibril Gabi Gaye nañ dem laaji Jibril Gabi Gaye lii may wax bu amul rek. c'est man mbaam laa wala jaam laa. mais du sax yegg ba foofu parce que. Mouhamed bi ñu ma tuddee. Mhm. déjà doy na ma sëkk. li ma li ma war a doon ma doon ko te seetluwuma ci lenn. Mhm. mais nag cofeel ci nit ki franchement. moom waaw kay kenn mënu ci dara. bon mhm. moom ala kulli aal je l'ai choisi. te su ma nee jëlee choisi rek lu tëggu la ci man. parce que man ce qui est difficile chez moi c'est le choix. ok pour bañ a nekk ci erreur. d'accord léegi ba léegi euh, colère boobu yéen ñaar seen diggante mu ngi dox mu ngi continuer bu baax a baax a baax nii amatul jot. mais il m'a donné mm-hmm. te xam naa ne xeebu ma euh, jox na ma daal sama wàccuwaay yi war mm-hmm. yi nag ñu seq ko ci diggante nit nit nit la. Mm. Euh, te loolu maa ngi ko ci ñaanal bu baax a baax a baax parce que xam naa njëriñ li. Mm-hmm. te it won na ma firnde bi. accord léegi boo amoon loo leen di dolleel ci euh, ci seen li ñu nga xam ne lu bees la ñu jot ko ñuy ñaan chaque jour mu jóg leen yéen bi oyof moom ak euh, président Bassirou Diomaye fay ana lan nga leen di wax. <laughs> ma commencé ci président. Mhm. di xam ni mu toll ci man. Bassirou Diomaye Faye. Mhm. jaaxaar. <laughs> dama naan ko fay biram penn waagaan dugu dugu waagaan mais waagaan kuma sañaan faa saaneem lattiir xaangol naa ngoo ko mhm. a gede kaa yaxi hmm? ko podom gunoo kunaa podom salmoonoo yaxum <laughs> waagaan fay jeen fay lattiir fay latsuug fay biiram fay penn coro fay léegi laaj ma li nga may laaj waaw soo ko wax. mais santam neexul dama ne dama la ci dolli loolu dana fay neexul. yow yow sa waxtaan neexul sa waxtaan dafa naqari yàlla mu ngi la sàkkal déjà lu mu sa sàkk ku mu neex. Basirou dafa sant Diouf lépp gën a neex. yow mi ngi la sàkkal loo xam ne sàkkaloo ko n'est pas un sacré yàlla. kii bëgg naa ko loolu nag waaye nag daa waroon a sant Diouf. non non non non léegi bàyyi ko rek mu sant. fay ginnaaw ba nga ko takkee ba pare ci santam. waaw borom njaga ñaaw léegi sax nee na njaga rafet la tudd. kenn sañatu tabax dëkkam ba njëkk a ñaaw. Euh, loolu c'est une grande philosophie et une grosse philosophie. <laughs> une grande philosophie et une grosse philosophie. Mm-hmm. soo gisee ñu wax la loolu c'est parce que ce qu'on avait cru xam nga dafa xeebu ba nga xam ni nii. Mm-hmm. soo ko xamul ci ay qualité d'homme yi mu incarné ku mën a gëstu nag laa wax de. Mm-hmm. doo ko xam mukk ilaa yow mi diine. waaw. minante xaw ma ko demuma këram mu suñu sax daje. wala bu amee yëguma ndaje bi. Mhm. xëy na daan na ma gis à la télévision moo xam naka la ma jëlee woon. ak fu mu ma féetee woon jugement bu mu amoon ci man. Mhm. mënuma ko inventé. mais damay wax dëgg rek. Mhm. te yàlla tax parce que wax naa la ko sànq ci sama wax man lu ma gëmul. doo du ma ko sàkk lu dëgg. boo gisee ñu jeex ma ci biir Sonko c'est parce que tout simplement dafa am yu ma xam ci moom donc euh, loolu ma xam ci moom dolleeku la ci man parce que l'homme il est extraordinaire ku ko xamul rek moo koy dëkkal fu mu dëkkul mais ku ko bëgg a xam na fexe ba jege ko ba vraiment xamanteeg moom parce que xam Sonko jafe na de parce que dina am yoo xam ne nii ce jugement boo ko porté rek da ngay réer ce dont il est capable, ainsi que Diomaye, ce dont ils sont capables dépasse l'imagination. foo ko natt rek wees nañ waaw ah, ah, wallaahi kooku moom lu ma xam la ci analyse yi nga xam ne nii dama koy faral di def te def naa ko personnellement mm-hmm. mais ma garde ko mënoo mm-hmm. fexe di ma laaj di ma laaj ba ma dugg ci wax la ko <laughs> doo ma ko wax dama koy jaay waaw doo ma ko may tey fii rek. non non jënd rek. ah marchand rek marchandise la. yow xanaa man doo ma jaay. ma ne dinaa la jaay yow xanaa doo nit rek. Ah, man du sa foo mënti ne sama doom sax bu ñëwee dama koy jaay. ah pourtant mënul nga ñu ko tegal fii rek de fii. ma ne teguma fenn. li fi ma ko teg sama xol la mu nëbbu lool nag. mënoo koo wax. waaw nee naa la la nit ñett la. xalaat xalaat la xel ak xol. Hmm. ci ñett yooyu laa ko dénk. wér donc. waaw xanaa waaye kon xanaa mën nga ñoo wax tey kon ñoom ñaar tey boo leen doon wax wala nga leen di dénk am loo leen di dollil loo leen di wax ñoom ñaar. xanaa di leen ñaanal rek ñu gudd fan ànd ak wér. Hmm. bu baax. mais ñi nga xam ne ñi ngi ruuma naat naan ñoom ñaar seen ànd bi du continuer nag loo leen di wax. non ñooñu wax kat la ñu rek da nga leen di xool rek xam nga dañu mel ni peinture bii. Mm-hmm. bañ ko fi defee tey boo buggoon mu dañ tey li nga wut leneen lu koy mën a xoos ba mu dañ. doo ñëw di ko xoos mu dañ de il faut nga indi loo xam ne nii day mel ni diw wala ndox. ñu jaarale waat ko fi comme suñuy peinture ndax peinture bi dañ. waaye mën nañ cee teg beneen peinture. ah ko kon dindoo dindoo toog peinture. yow da ñëw fekk peinture teg ci peinture la gis loolu moo la réeral <laughs> da ñëw fekk peinture teg ci peinture. Ah. waaw. mais xoosuma ko. waaw mi mel ni nga. xeesal loo bëgg a wax foofu loo bëgg a leeral foofu. mi ngi mel ni nga ñuul kooku yàlla moom la ko def. waaw nga ñëw xeesal. waaw voilà budd di nga ñuulaat. dëgg la wala du dëgg. dëgg la ok ah, ko mënee firi rek ñoom ñoo xam. dégg naa dëgg. d'accord alors mu ngi noonu am am na solo amati na solo sax laay wax euh, dinaa ci dellusiwaat waaye nag doo ñëw fii mukk di te laajuma la ci euh, mbirum théâtre ndax gis nañ ne ku ne xam na ne fi mu ne nii. Mm-hmm. série yi bëri nañu. ñëpp a ngi théâtre euh, xam naa nag euh, balaa ñuy dem nag damay xool ba euh, xam naa bi ne si c'est nga may ñu benn élément ñu daal di koy xool daal di dellu si waat ma ne kii su ma ko buggoon def dara def nag ku démb ah yaakaar ne dara xam moo li nga nekkee ah xam nga lu ma la yëgal sangu jil nga julli ndekki bu fekkee ni des na fi te nga jubal école dégg li ma la wax ah? boo demee nga wax seen directeur ni dina fa ñëw xam nga ni kooku du jëriñ dara papa ndax bu ma demee du ma mën a dugg classe waay ma ni la nga dem ci directeur nga nii lan loolu dangaa dégg lu la wax si mbir mu toll fii jëlee sa doom nga téye si loxam ànd ak moom ba sa directeur école bi nga waxtaan ak moom nga neen ko délai eh sa kanam ji ne dele yaa may jàngal li may def yow li nga xam sa tus yow papa nga ñàkk ko ci mu dem di fréquenter ñoo xam ne yow sax neexu la yow sax gënul la woon loolu uh, yow yaa ko def ndax yaa jël ay soxna dajal leen ci kër gi. Mm-hmm. gis nga <coughs> foo ngeen am jàng boo xam ne bu xóot la ci lii. Mm-hmm. ndax dafa lal des parents mm-hmm. lal aussi tamit xale bu dëgër bopp. waaw boo defu ndànk rek di nga ci réer ci seen i melokaan mm-hmm. parce que loolu tax nag théâtre bi ñu tuddee ko théâtre pour mën yemale xalaatu nit ñi ba fu ñu mënti yem mais kii sax du théâtre mm-hmm. kii téléfilm la téléfilm waaw dafa am lu jiitu téléfilm yi mm-hmm. mu tudd captation captation moo jiitu téléfilm yi ba ni téléfilm yi ñëwee ñu ngi ko commencé en 1972 mais kii 88 dañ ko kii suma juumul. 88 non non lii 88 moo ko mag parce que lii suma juumul ci yi nga mujjee def la bokk yàggul ngañ demba la muy ci gëz waaw mais bokkul ci yi ma mujjee def. waaw yow mujjee def kay ñu nga fale ñu nga fan ñu ngi. Sorano euh, non non non Sorano kii. ñu ngi fan. Euh, ña France. ok ngi ci canal. bi ma mujjee def. waaw maa ngi ko tourné fële ci gore Gorée. benn bi ngay dégg île de Gorée. Mhm. donc foofu laa ko tourné titre ba sax pour te dire. Euh, jàppatuma ko waaw. yàgg na yàggul parce que mhm. ça fait quand des années. loolu mu lay wax nii. Mhm. mais mujjee tourné. am na ci. jamono joo xam ne nii kii na ko mais je veux dire que ni téléfilm moo jiitu euh, théâtre à la télévision mm-hmm. bon théâtre à la télévision dafa am tuddin mm-hmm. ba léegi ñoo ngi koy wax théâtre la ci kii bi mais captation dañ ko tuddee c'est des images qu'une télévision vient filmer capter les images donc foofu la télévision sénégalaise ORTS njëkkee mm-hmm. c'est une télévision RTS qui vient euh, euh, dans une place quelconque boo ko jëlee comme une scène mu nekk ko et la télévision vient capter les images sur scène mm-hmm. loolu la télévision sénégalaise njëkk def mm-hmm. ba mu fa jógee avec les nouvelles technologies mm-hmm. matériel bi daal di gën a nekk un matériel performant qui allie le son et l'image nga xam ne nii looloo indi téléfilm c'est-à-dire une télévision qui vient filmer les images mhm. nekkatul captation bu njëkk ba c'est les deux pouces yooyu sax c'est un peu technique mhm. du mun jaar tekki parce que moo xewoon à la télévision sénégalaise nga xam ne en 1972 la sosu donc loolu c'est toute une histoire. waaw yooyu dañ ko war a di ko xamal nit ñi ñu xam progression bi nga xam ne nii les nouvelles technologies indi nañ ko. d'accord ñu dem a dem a dem ba nga xam ne ay trois quarts de pouce ay deux pouces la ñu jógee dem ay trois quarts de pouce jóge fa ñëw ci matériel boo xam ne comme yii ngeen di utiliser. Mm-hmm. donc toujours inspiration bi ci trois quarts de pouce la. Mm-hmm. ça allie le son l'image et euh, euh cadre. Mm-hmm. maanaam. la mise en scène. mise donc euh, film loolu lay composé wu boo ko décomposé noonu lu ci nekk dafa laaj jàng. Mhm. xam-xam la boo xam ne nii tey suñ ko ubbee woon tasaare ko jeunes yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañ ci biir parce que ça les intéresse maintenant mën nañ ci liggéey indi ci xam-xam boo xam ne ko ci nekk di ci am sa formation. d'accord ñun ñi nga xam ne ñii jiitu nañ leen foofu chance la rek. ok mais du doonul ne ñun ñoo fi gën a aay. problème mu sax dañ ko war a dàq su suñ ko dàqee. ku ci nekk di nga mën a xajoo sa bopp. dëgg la parce que man je je wax naa lu fii que je suis démocrate. Mhm. les jeunes qui sont venus actuellement. Mhm. dafa laajoon ñu préparer leen su le plan du jeu. parce que dafa am loo am importance loo xam ne nii ba léegi xamuñu ko. Mhm. muy lu ñu tuddee la génétique. kooku waxuma la ko woon. te léegi dafa bari. muy lan dañ ko war a jàng. Mhm. génétique mi ngi tekki euh, sentiment. Mhm. ak émotion. maanaam jeu d'acteur. non non ba léegi bokkul ak jeu d'acteur. sentiment ak émotion. Mhm. xëy na bu lal day lal ba nga xam ni nii jeu bi nga war a indi da ko war a wéer ci un sentiment. boo mën a tekki ci biir émission. sa mm. donne beaucoup plus de puissance. à la façon de filmer, mmh. ça encore beaucoup plus de puissance aux acteurs, ça donne encore beaucoup plus de puissance à la technique. moo xam technique théâtre bi. qu'on transforme maintenant indi ko ci cadre film. moo xam technique bi nga xam ne di téléfilm la. parce que théâtre bokkul ak dara téléfilm. Mm, mais boo leen allié day nekk euh, genre dramatique. ca à dire y un jeu te bu jeu bi neex caméra yi plan de euh, plan de tournage dañ ko war a bind kooku réalisateur moo ko moom moo ko war a def waaw mhm. plan de tournage mhm. nga xam ni day découper mhm. boo bu lay wax na la serre un peu valeur bii moom ma doy bu la ko ay TGP très gros plan ay PTR plan poitrine rapproché yooyu yëpp dafa exister te loolu dañ ko war a jàngal xale yi mais xale yi nag fi mu ne nii xale yi actuel yi nii am nañ am xarañ nañu de père. est-ce xam nga ne y a une suite chronologique du film. Mm -hmm. qui intensifie la dramatisation. loo gis ñu bind ko y a une dramatisation à côté découpage bu ñuy def lu ko mën a génne mooy koo xam ne am na xam-xam boo xam ne ci découpage bi la koy wéer. Mhm. pour que nit ki mën a seetaan film bi mu mu mu jàpp ko sax am na bu ñu signifié. ci moom ci xol dem ci xol. doonu day jóge ci xel. dem ci xol dem ci waaw dem ci dem ci xol. parce que bu jiitoo xel rek. Mhm. Euh, na muy mel ci ci xol mu day xaw a doy waar. d'accord ba tax na ba dama bëggoon ñu desandi ci lii. Euh, mhm. ndax sànq dégg naa nga ne xale bi dëgër na bopp. waaye tamit euh, parent bi am na ci part de responsabilité ndax nga am doom mu ñëw ñaari yoon ne la dañ ma dàq école. Hmm. jéemoo dem école am xool ba xam lu waral dàq bi. te liñ ko doon laaj pour nga war koo jënd yow mi ni papaam jënduloo ko nga ne xale bi moo dëgër bopp. waaw xam nga lecture bi ma la indil. waaw firi na lépp. li tax ma ne la les parents sont irresponsables. Mhm. parce que doom boo ko yoree dugal ko école doo ko bàyyi noonu day mel ni bàyyi ma. Mhm. donc war nga ko suivre xool ko na muy jàngee na mu fa toogee na mu fa nekkee lan mooy waxtaanam kan moo koy jàngal yooyu yëpp. Mhm. c'est une part boo xam ne que les les les parents doivent porter obligatoirement. soo ko defalul sa doom kan koy defal. c'est vrai. Mm-hmm. sa doom c'est ton bien. Mm-hmm. da nga bëgg mu baax. dëgg la da nga bëgg mu yaru. Mm-hmm. soo ko dugalee école pour lan la dugal xam-xam ci xelam. looloo tax ñuy wax ay iqra yooyu yëpp du ko firi ci yonent bi. jàngal mais loolu roy la laaj. laajul nga ñëw jur doom rek bàyyi ko noonu day mel ni bàyyi ma. doom joo bàyyi ma dajale ay soxna ci kër gi te mënoo lool leen dara ñoom ñëpp itam. jërëjëf kooku tamit c'est irresponsable. booy dajeel soxla. na fekk nga mën leen a taaw. dégg nga góor euh, xam nga dafa am benn woy boo xam ne nii bu ma jëlee Louga. ñu tuddee ko ngóor kan. sama semiñ doom bàyyi kama ko daggal naxul noonu la woy bi firi li mu ëmb dafa rëy. parce que du semiñ boo xam ne mën na dagg rek. Mhm. mais ngóor kan. déjà ngorkan déjà ça signifie le bûcheron. bûcheron. Mhm. alors bûcheron boobu ni muy daggee yettee bantam dégg nga xam-xam bi mu laaj ba bant ba mën tekki dara. Mhm. loo xam ne mën na ko bëgg va voir les les les bûcherons qui sont en rue là ou dans la rue ou dans certains quartiers. Mhm. nga xam ne ñooy ñooy yett. mooy lawbe yi euh, lawbe yi par exemple ñooy yett kii ba. ay gën ak yooyu noonu vraiment mu doon gën. mu doon daal benn. statut yi waaw. dama nga laaj leen liggéey bi nu mu toll ak nu mu mhm, mel mhm. nañ koy defee yooyu yëpp xam-xam la te ci culture bi la bokk donc sorewu ko mhm. moo tax tey nga gis ma ma nekk ñu may wooyee politicien te naam <laughs> théâtre bi muy def sax politique la dëgg la ok alors ba léegi dañuy desandi ci culture mais gisoon nañ tamit nga nga joué fi pièce boo xam ne euh, gis nañ ñeneen ñu ko fi defaat mais dafa amaat beneen polémique muy def euh, nekk borom ñaari tur yi gisoon nañu nga cee jaar ci ñu ko tuddee rek non dañ koy dañ koy rafetal rek. ma bi nag si bon nga may ñu élément bi. <laughs> góor jigéen bi. waaw defoon nga ko fi te dafa mel ne ñi ko fi defaat am na coow. Euh, mais yow bi nga ko defee par rapport ak yow sa bi nga ko defee gisuñu ci benn benn inconvénient euh, mu di borom ñaari tur yi bi ne si c'est nga may ñu élément boobu ñu ñu ñu daal di dellu si waat. façon, je t'ai commandé un café et des aspirines. Tu vas voir, va passer. ma xala yu tamit nga nekk ci restaurant bi di lekk lekk lekk rek oh <laughs> mi ngi noonu ñoo ko gisandoo gis nga ko noonu yow de xale bi yaa ngi ko indi fii ba pare naan ko da nekk nee na la sama yaram bee métti nga ne ko restaurant bi nga nekk di nekk rek lu war a lu. ah mais bon waxiñ la rek dafa laaj dégg. <laughs> loo ñu mën a wax ci lii tamit. lekk bu ëppee sonal borom. te lekk moo ko indi fii. mu yow <laughs> seetaan nga. <laughs> yaa ngi wax léegi da rafetal kàddu yi. ah waaw d'accord ma wékku ci rafetal. léegi nga bëgg a indi indi nañ ko rafetal léegi li li ñu ci mën mooy xale bu jigéen bu bëgg xaalis xëy na moom itamit ñàkk doylu ndax papa ji sax li mu ko duggoon da ko faa bàyyi na ko eh, dem seeti dem bàyyi kam doon àndal dem ñëw seeti benn peer. papa ji bàyyi bàyyiwul la mu di woon moom kay moo jaarale boppam foo xam ne nii <laughs> neexul woy juram. non parce que papa ji dafa mujjee. na ko yére yére dina la jaral yenn yi jaru ko ba ba dem jaay sa bopp. wax dëgg yàlla jar ko. waaw nga fekk mag moo xam ni moom euh, foo moo ko intéressé. ñëw dugg ci moom ba yaakaar ni paa la boo xam ne nii damay ñëw rek jaar ci kawam nax ko. mais paa bi aussi boo koy wuta nax bul xam li muy waaj. waaw bi doful de. <laughs> paa bi doful. <laughs> waaw est que jaroon na lii est que jaroon na lii tamit kii koo xam ne daanaka sama moromu doom la. xam nga fu mu wax ji nekk. wax ji nekkul ci morom xam nga caay-caay moom melokaanam day bari góor gi caay-caay la xale bi aussi tamit dem na ba nga xam ni nii la ko yóbbu te alal alal jarul la gëm xale bi gisoo ne dañ koo nax parce que dafa mel ne innocente la. mooy li ma la wax rek nee naan nii alal jarul la gëm. Mhm. cela veut dire dalay dugg te alal seytaane la. waaw fa mu lay jëme bool xam mook léeg mu jëmale ci loo xam ne du la neex mais ñàkk pexe nga koy tuddee. Mhm. donc seytaane boobu mu ngi tudd ñàkk pexe. Mhm. xam nga ñàkk pexe fan lay dund. waaw mu ngi dund ci biir nit ñi. Mhm. nekk genre iblis boo xam ne nii li ko ñor dëgg mooy xelu nit. xalaatu nit. xelu nit ak xalaatu nit moo ko ñor. iblis waaw. xel ak xalaat lay ñëw moom leen ba tënk leen. yeew leen defloo leen loo xam ne nii xol ba bu nee ci ñàpp rek da ciy tag du si jóge ci xale bi ni mu gis ci paa bi ba naan dafa coofeek dafa nii nangam nangam toog topp ko mu yóbbu ko boîte. waaw jëlee ko boîte yóbbu ko fan. hôtel. am ah, ñu noonu yegg nga ci wax ji. dañ dem ci hôtel bi nag. la xew ci hôtel bi moo ko laaj. gisoo ne lii chaque fête dañ ko war di teg di ko fàttali xale yi pour ñuy bàyyi xel. yu du ma yem foofu rek parce que xale yi. bàyyi xel bi sax c'est un peu dangereux dañ ko war a waxtaanee pour ñu wàññi seen allure yi ñuy demee parce que Iblis di lay ñëw fekk la ci allure boo xam ni booy frein këpp oto yi accidenté yëpp daf leen di fekk ci melokaanu dawal boo xam ni bu ñu làmb frein rek oto ba jullootu mhm. wala ñu làmb frein frein ba dagg loolu yëpp misaal la yoo xam ne nii day dal nit mhm. danga naan di kii kay damay dugg dugganteeg moom tuuti rek fii laa ko yemale mhm. mais kooku nga ngay duggee xel la ba jeex tàkk yàlla bu mu la mag na mhm. dana la diif loolu loo xam ne nii bëggoo ko woon jëf nga tàbbi nag ci loo xam ne nii musiba la de ay suma yëgoon ci lay soog a jox la mag di ëpp lay sakar wax jëpp ngi noonu mag mënul topp place am ndax seytaane xale it mënul topp sam ngir seytaane ba tey mhm. donc ñaar yëpp seytaane di leen di dugg waaye pour mën a gàllankoor seytaane boobu di leen dugg bañ a dem mhm. bañ a jéem bañ a jëf mooy mhm. ñett yi bañ dem bañ a jéem bañ a jëf man laaye boobu ñett yooyu laay xale nit ñi léegi nag ñu ñu war a def mooy dañu war a créer ay émission yoo xam ni après genre théâtre yu demee nii waaw wala yu koy nuru mhm. ñu toog ci waxtaan ci décortiquer ko ba xale yi di ko dégg kay ma ngoog mhm. d'accord alors ba léegi des na élément bu bi ma la doon wax ñaari tur yi bi na si sebon nga may ñu boobu rek eh, ñu daal dellusiwaat <laughs> nee na ma rafetal ko waaye rafetal naa ko xaw ma da ngay gintee xaw ma nag da nuru may sa damaa bëgg nga ping say cër ci kaw ba ci suuf. Ah. eh wuy ma fii ngay nuróo béyu ndëpp. ya may leen waaw ngay nuyoo ci boppam waaw waaw xam nga nu may def tànte. ci biti xam nga alkaati yaa ngi fi xus. waaw waaw jël ci rek indi fii ñu. xaw ma da ngay ndaw ràggin. Ah. xaw ma da ngay gintee. xaw ma nag da ngay nuróo may sa dama bëgg nga ping say ci kaw ba ci suuf. Ah, eh wuy fii ngay nuróo béyu ndëpp. ya waaw ngay nuyoo béyu ndëpp ci doxam laa wax. waaw waaw xam nga nu may def tànc. waay ci biti xam nga alkaati yaa ngi fi xus. waaw rek indi fii ñu fukki. merci beaucoup euh, Binette euh, gis nga ko noonu nee nga ko nga maa bëgg nga pinge say am say façon wax. ak ni nga doon def léegi la aw seen wax nga ne ko bés. <laughs> Ah, yu ma génne la. <laughs> yooyu foo jëlee woon sa terme yooyu nga doon wax. waa parce que dama ñëw Sorano. <laughs> Uh-huh. nekk fa artiste euh, comédien. waaw donc euh, bi ñuy génne lii di ko def ki nga xam ne nii moo ko doon def ndem si yàlla gi yàlla na ko yàlla yërëm muy bu juuf mm-hmm. da ko doon def sax ba euh, yëkkati ay coquette daan ko sol. man biñ ma waxee nii noonu laay def cest à dafa am ñaar nga toppandoo homosexuel wala nga toppandoo keneen ki nga xam ne nii du homosexuel waaw mais day jigéen jigéen lo parce que yariñ wala c'est waaw ñaar yooyu moo fi nekk mhm. ban nga ci góoru mbootaay waaw am na à l'époque noonu lañ ko tuddee woon mhm. donc góoru mbootaay boobu ma ni kii daal bu ma ko joué góoru mbootaay du saf nit ñi ñu ne ma lan nga koy joué may leen euh, dama koy joué góor jigéen. Mm-hmm. boobu wax yi ci góor jigéen bi yëpp amul. ma ni un danaa leen dénoncer parce que xam naa ni tôt ou tard dina ñëw. dina xel moomu moomu dugaloon parce que fii may fàttali ne yoroo woon role bi di ko def. Mm-hmm. bi ñuy distribuer euh, ki ma xool ba sepp ne danaan ah kii Boy Médina la dañ koy dénk ki nga xam ne nii. mooy tooñ njëkk bi addu calpe quoi genre yooyu waaw loolu lañ ma waxoon ni naa ko def ñu dem ba mujj gi ñu soppi ko mhm. indi ko ci góoru mbootaay bi ñu ma ko waxee ma ne góoru mbootaay mënoo ko def di saf nit ñi mhm. xaaral ma dugal ko ci góor jigéen parce que tôt ou tard cette histoire du góor jigéen day mës a ñëw. kon moment bii boobu góor jigéen melu woon nii non non non boobu li meloon na noonu sax mais avant lu jiitu ñun suñu suñu ñu ndaw. waaw parce que nekkoon nañ fi. Mhm. waaye mais coow li ñëw léegi. dafa bees. ok dafa ñëwee neneen. moo àll kay coow li ñëw euh, ba ñu dugal ci alxuraan li ci alxuraan wax ak yooyu yëpp. tout ça mm-hmm. Mm-hmm. donc moo gën a densifier. affaire yi. Mm-hmm. ñu ne kon mbir góor jigéen dañ ko war dindi ci réew mi. parce que réew mu lal ay góor jigéen vraiment loolu jekkul rafetul benn. te l'islam da koy tere. l'islam sax li mu ci wax encore moo gën a doy waar. dégg nga nañ def lii nañ ko def lii nañ ko def lii buñ ko gisee yooyu loolu tax yàlla ma yàlla baal je rappelle tout simplement mais dugaluma loolu pour mm-hmm. wax mm-hmm. tax ne loolu yi nga xam ne xewoon na kaw Kaolack xaw a demoon waaw mm-hmm. sulli ko dem di ko lakk di waaw loolu loolu moom euh, l'islam sax santaanu santaane wu ko noonu donc euh, ce n'est pas parce que góor jigéen la woon dans sa vie mu dee ba ñu suul ko alors yow nga dem sulli ko di ko lakk vraiment mhm. loolu vraiment euh, waxuñu ko quoi parce que du loolu moo indi lii mhm. lii donc alerte la woon mhm. parce que xamoon nañ ni tôt ou lii dana ñëw parce que dafa commencé woon di am di am ndànk ndànk waaw di am ndànk ci yenn quartier yi rawatina ci yenn gox-goxaat yi mu gox mooy région mhm. bañ dañ ko sax ba tippi la région de Saint-Louis mhm. comme loo xam ne kii la ci jamonoy tubaab yi mhm. donc yooyu ba muy exister donc lu jiitu suñu ndaw la ñu xam ko xamoon ni ñu nekkoon dans notre société nga xam ne nii c'est une société boo xam ne nii tolérance moo jiitu woon waaw pour xam leen ñoom xejoog ñoom ci kii mais yàqaluñu woon dara bien que l'islam ak li mu ci wax mais bi ñu demee dem dem dem ba nit ñi seen gëstu di gën a yaatu ñu xam nag mbon mbon gi nga xam ni nii nekk na ci moom ba vraiment bu ñu moytuwul sax mën na yàqub réew donc ñu ne nag nañ ci jóg ci la coow li commencé jóg jóg jóg jóg mais lu jiitu loolu la indi woon suma mbokk moom nga xam ni nii moom nga doon junj léegi mu def ko mu indi coow. waaw bon parce que man dama dama ci génne rek pare ci simmee ko complètement pare ko waaw da ko def daal pare ci. mais amaana ñi ko def dañ ko continuer di woon doxee ci mbedd mi wala di ngay ngay romb ñu naan la waaw diw ba nga waxee lii diw lan la tontu am na ay artistes yu bari noonu la ñu defee. ok dañuy dem ci géew. ñu naan la waaw day sa pièce bi lii nangam nangam ba nga joué lii ba sa théâtre boobu lii ak lii ak lii waaw loo waxoon kii nga daal di nekk foofu mbel mbel mbel mbel pour nit ñi ree di ko nettaliwaat man bokkuma ci genre boobu. d'accord yëre bi da nga koy sol ba pare da nga koy summi. waaw loolu lañ ma xamal. d'accord loolu lañ ma jàngal ci métier bi. ok donc euh, boo ci paree pare nga ci. waaye di ko sol mu mel ni ñu la woon joué la jor mm. nga génn ci biti bu ko doon la jor. loolu mooy lan mënut a nekk wala nga mel ab nekk ab jaraaf. waaw kay. mënul ne donc mënut a ne waroo ko sax dugal sa bopp. c'est da nga war a pare rek. Mhm. laver complètement ton dindi loolu parce que waroo ko wéyale. dëgg la waaw mbubb la woon boo soloon boo ca pare boo ca pare pare nga ci. mais. Mhm. li nga xam ni nag ñoo koy indi ba ëppal ci. Mhm. ëppal ci du sax ni role bi dañ ci ëppal mais ëppal ci mooy nga jël ko puisque ni ñaa ngi ree foo dem yóbbu ko fa. waaw loolu moom kenn waxu ko. kooku laajuñ loolu. boo buggee yëf yi am valeur maanaam jeu d'acteur bi. foofu la amee importance. c'est vrai soo buggee nag mu ñor mu wér. nit ñi bu ñu la gisee apprécier la mm, kay il faut rester euh, soi-même. c'est dama ci jaare sax di nuyu. waaw passage ndaayaan bu nekk si ñoom ñànku tamit génn. waaw bu ngeen toogee nii nga ne ko ana biteel bi danaa ne biteel bi xaalis moo koy génne. ça veut dire que fekk nekkuñu ne action rek maanaam style Gainsman bi du génn. Mhm. voilà pour confirmer li nga wax. waaw parce que loolu sax dafa baaxul. loolu day rey day rey. day rey daanam day mhm. la yow en tant que personnalité. dëgg la en fait euh, du métier. Mhm. donc loolu yëpp daf ci dafa ànd ak moom. parce que nag limiter sa bopp loolu mooy nga épouser rôle bi d'ailleurs sax da nga koy épouser après bu ci génnee génn nga ci. ce rôle n'est plus ton époux ou ton épouse. d'accord tu deviens toi-même. Mm-hmm. am na ñu bëri mënuñu loolu. suñu xasee bu dugg ci leen day dem ba moom leen ba nga xam ne dañ koy doxee di ko waxtaanee di ko defee ak yi c'est la rue. d'accord dañuy def c'est pour un moment bien défini ça de temps wala une heure et quelque. xew ci pare pare nga ci. tu deviens pas Lat Dior dans la rue. ni mm-hmm. chez toi. d'accord tu deviens toi-même. ok c'est une personnalité que tu incarnes. Mm-hmm. et après l'incarnation de cette personnalité. mais tu tu te tu t'en débarrasses. d'accord boo ci paree war ci man pare ci daal mu mel ni mbub moo xam ne nii da nga ko soloon. boo ci paree simmi nga ko mais faf koo ñaw so <laughs> kon kay dañ la koy daal di tuddee rek. alors euh, léegi euh, euh, ba léegi damay desandi ci sa xarit bi mu di premier ministre kon di nga ànd ci lim ne woon dafay criminaliser loolu li nga xam ne moo di borom ñaari tur. Ah, tey incha allah rabi dana ko def dana ko def waaw moo ko waxoon dañu ngi koy xaar. waaw mais. je vous l'avais dit dès le début. Mm -hmm. faites attention à lui. Mm -hmm. pas dans le sens où il ne respecte pas sa parole. mais lu mu leen wax na ngeen ko bàyyee bor la. da koy def te incha allah dana ko def. Mm-hmm. incha allah léegi nag nit ñi nga xam ne nii kin ne le connaissent pas ñoo koy dëkkal fu mu war a dëkk di ko ŋàññ te ko defu leen. xam nga Sonko kan la def. kan la def ki bañ jaar ci yoon wu jub. Mhm. kooku la Sonko def dara. te gis nga bu ànd ak moom dëgër ci bopp du ko teree wax li mu bëgg a wax. Mhm. te mënul ci moom dara. dama yërëm sa benn jigéen boo xam ne nii ba mu toogee ci télévision naan nous n'avons pas peur de toi. Mhm. ñenn ñi wax naan bu ñeme woon day ñëw assemblée. discours de politique générale boo xam ne nii aajuwul ci règlement pour nga def ko mm-hmm. te yow boo ko defee yow mii taxaw en tant que premier ministre da lay dimbali ci sa politique ngir nit ñi mën koo xam-xam fi nga jëmee réew mi waaw mais kooku ku jub kay du ko daw mm-hmm. lu ñu wooyee Sonko ku sell mi nañ xaar ba mu def discours ñuy soog wax mm-hmm. parce ñoom ce n'est pas en fait discours Sonko moo leen intéressé mais daf leen lëjal nekk seen xel di ci dem dem boo xam ne nii taluñu nelaw taluñu lekk ba suur mhm. taluñu lenn lu mooy naan waaw dafa war a ñëw dafa war a ñëw lu muy ragal lu muy kii sunk n'a jamais eu peur dans sa vie bu ragaloon waaye yow xoolal fi mu jaar ak Macky <laughs> fi mu jaar ak mag yi. ku mu fa jaarul loon. dégg waxuma la taq ban sax da ngay saalit. <laughs> da dëgg la son courage. Mhm. dépasse l'entendement du courage dans tout son sens propre. pour te dire il n'a jamais froid aux yeux et lu mu la bëgg a wax la ko wax. xaar loolu incha allah. lu ko may doo doon xaritam doo xaritoo koo xam ne nii nangu loo dëgg. Mhm. doo xaritoo koo xam ne nii. yow tu aimais te tes intentions bëgg ko interdire lui mhm. qu'il émette wow. Hmm, ses intentions mhm. foofu balance dootul am équitabilité dootul am te moom nekkul ci yooyu lu mu la wax booy boo feyee ko bor mhm. danaa ñëw def sama politique générale mais yooyu dafa ndékki añ ci reer ci nekk ci njogonal si sax foofu ko fi jar te moom ñoom sax bu ñu muusoon xam ni ci doxalinam rek am na lu mu ciy bàyyi lu tuuti ay bribes hmm. mais manque d'intelligence moo tax nit ñi def ko lalukaay hmm. def ko fobeerekaay dañu dem fobeere douche fa ba pare bu ñu jógee ci douche ba fobeere boobu ñu fobeere douche moom la ñu jël yóbbu ko ci salon ba. yóbbu ko ci néeg yi yóbbu ko ba yóbbu ko ci véranda bi lu ko fi jar. dëgg la dara jaru ko. même morceau bi la jël fobeere ko fépp. Mhm, jaru ko parce que morceau bi ngay fobeere douche. loo mhm. ko yóbboo ci salon. Mhm. <laughs> <laughs> bu ko yóbbu ci chambre à coucher. amul sens bu ko yóbbu ci veram véranda nga am moo gën a yaatu te ñi toog di fa waxtaan. ngir yàlla ak yonent ba am na solo jarul te yàkkamti mhm. dana ko def incha allahu rabbi kon ñu ngi koy xaar comme parce que man jàkkaarloo nag moom justement li ma doon laaj mhm. naan ma keroog ba ngeen jàkkaarloo la ngeen wax waaw danaa denc importance su wax ji mais pour une précision rek moom ne ne ma carrément dinaa la recevoir parce que li ma yore bëgg mu xam ko te parce que président de la république Diomaye mi ngi ma doon laajit moo war a dégg loolu te xam naa ni comme ñoom ñaar benn lañu. Mhm. Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye foo ci jaar ci ñoom ñaar rek ñu yëg loolu. Mhm. wallahi alors buñ ci duggee Sénégal ay milliards lay am. incha allah te liggéey boo bu jeunes yi di kii weesuwul la culture. Mhm. problème mu mbéy la je m'en arrête problème mu mbéy la ñu jàpp ci loolu. mais buñ ci jubloo jeunes yu bari dinañ liggéey. te dana doon seen tawféex doon tawféexu Sénégal. loo xam ne mm. day indi milliards ci biir Sénégal. loolu nga ko doon wax. waaw waaw. d'accord ngi ko yore ci bopp bi. Mm-hmm. parce que sama benn cousine moom moom projet bi. te dafa am fu mu ma yemloo. ok baax na. xam naa ne kontaan nañu li ñu amoon ci waxtu daanaka jeex na tàkk euh, fi ma bëggoon nga tëjee fa rek juste mooy lii di RTS ndax ku ne xam na ne jamono RTS moom daanaka yow boo fekkewul léppi tamit am na loo ci fekk lu bëri euh, kii di Pape Alé Niang ñu teg ko fa mu di directeur bi mu mel ne wax ji commencé naa bëri si moom te dara xewagut loo koy wax moom Pape Alé. dañ ko bàyyi mu feex ñu bàyyi ko mu liggéey. wallaahi. Hmm, dina liggéey Pape Alé ci ni moo ko xamee liggéeykat pire la. Hmm, hmm. fu mu jaar bone fi mu jaar yëpp c'est quelqu'un non seulement qui a du métier mais qui a de l'expérience am expérience am métier nag dafa wuute mais su bëggee daal loolu di jëriñ nit waruñu sorente bu dee capable ce dont il est capable comme je l'ai dit pour Sonko et Diomaye loolu laay wax rek pour moom dépasse l'imagination mhm. tu sais que Pape Alé m'a invité temps bi muy liggéey Euh, euh, RTS 2 xaw ma 2S. 2S la waaw. Mhm. il m'a invité au moins à deux reprises on a discuté sur ma profession. Mhm. donc euh, ñu dugg si ba xóot. ba pare nag mu am ngor. ngor goo xam ni man Habib Diop suñu jigéen ju baax ci. muy ki mu doon defal. maa ngi fàtte tur bi waaye. 2S la nekkoon. ah. man mi ngi woon 2S. non kii Habib daan kii wël rek. Mhm. maa ngi fàtte tur de te waruma ko fàtte. ci dëgg-dëgg. <laughs> foofu la nekkoon ak moom daal. moom ak ki góorgóorlu. ah sën moom ak kan la sën. waaw sën waaw. man bëgguma ko tuddee sën parce que sën pour man vraiment. sën bal ma ci li ma ci xam <laughs> sën. sën benn sën bi nekk ci théâtre bi. waaw ma ne man bëgguma ko tuddee sën. moom turam dëgg-dëgg lan la chéri laa koy wax. ah d'accord parce que sën sën baaxul. waaw sën de moom mbalit lañ ci xamoon. ok soog a ñëw. <laughs> mbëbës. billahi laa la wax du mbalit. du mbalit. ku yaakaar ni mbalit lañ ko tuddee yow sa bopp yaa yéenu mbalit te xamoo ko. ndeysaan ku yàgg bégal ku yàgg bégal la. moom waaye dëgg dëgg sax te ba pare. Mm. xol bi laa a tax di wax. kooku gën a baax ci àddina amul. ku yiw la ku baax la. mais dafa ñëwaat nag ci kii nit ñi namm nañ ko. non mi ngi fii xam nga nit ñi ñoom dañuy teelu c'est comme des footballeurs ah. dañ koy xool ba mu yàgg mu euh, saf trop seen gët. ñu jékki-jékki rek daan kii dafa màgget la mu mënoon mënatu ko mm-hmm. non. seen la mu mënoon ba léegi faut de. Mm-hmm. Euh, euh, tur yi xëy na jekk na ci poubelle mais du poubelle la. <laughs> Uh-huh. moom xam-xam bi góor yeru sax. Mm, yore na ko moom ba fay ci ba pare nag. Mm-hmm. yaatu dënn. sën bu dee mbaax ngay natt ci moom. Mm-hmm. na mu baaxee sax ëpp na. ëpp mm-hmm. ba soo ko kii ku gaaw a jooy la. ndeysaan maa ngi gis campénal. Euh, wallaahi laa la wax. waxee nit dara. tu dëggu la nag foo ko fekk dëgg fa la koy bay. bu baax sax. mu doon koo xam ne nii du joué mukk ak nit. moom dëgg rek. yax bi ñuy bañ a toj moom muy ñëw jaar ci digg bi ne ko xal ñu ngi koy nuyu de passage suñu maman boobu seen ok ah, jox ko wàccuwaayam comme il euh, jox mm-hmm. ko wàccuwaayam man gëj koo gis nag. parce que dama xewle mu ñëw suma kër. Mm-hmm. Euh, deux fois de suite donc euh, waruma ko mm-hmm. fàtte quoi. mais fàtte lu ñu wax rek ne noonu borom la. da ngay dem a dem a dem a dem ba mu jege comme on se voit plus tout le temps. xëy yooyu moo tax xëy na oubli daal di ñëw. Mhm. mais du dara. donc euh, du tayeef. bien mhm. au ñoo ko jox waaye jamono moo xat rek. te li ma doon laaj ci metteel aussi. Mhm. noonu la quoi. ok lu la bett mën la loolu la ñu wax. la Olof Njaay di wax nee nañ sax li ne ci xol moo ëpp moo gën li ne ci lan. gën <laughs> ngi noonu sama jigéen dëgg la dëgg la. te ma am considération ci moom parce que li muy def kenn du ci werante mhm. mën na ko macha allah waaw maa ngi rappelé wu benn théâtre bu mu defoon moom ak euh, Habib Diop yaakaar naa mi ngi ci woon de théâtre bu jàgg mhm. la mooy laay euh, dafa doon jël ay affaire quoi rakkam la woon laay sàngara déedéet laay laay la tuddoon euh, je me rappelle mu ngi jël bagage bi di ko denc yi mu doon utiliser léegi heure bu ko waxee yaay ji ak papa ji duñ ko gëm ne leen day drogué wu ñun gëm ko ba jour bi nga xamante ne indi nañ fa benn xale laay dugg moom ne kaay ba may la tàngal rendi ko ci néeg bi xam nga ndax yaa ngi fàttaliku théâtre bi bu baax tam naan bàyyi li ñëw di ko fu mu naan ko danga may faj ma lay faj waaw sën moo ci nekkoon sëram tout à fait bu yàgg la théâtre bi waaw ah, kay ma ngoog gis gis nga ne mu ko defee woon <laughs> ma ngoog donc pour te dire c'est une grande dame mm-hmm. c'est une grande dame et quand je dis c'est une grande parce que man xam naa ci dara. ndeysaan xam nga ko baax waaw kay. jërëjëf père. waaw kontaan nañ ci dalaloon na fi. ah bu sooful nit ñi day fii day warat naa fi dellu seeti parce que li ma buggoon wax yëpp. waxoo déedéet. waaye loolu lay olof Ndiaye nag naan li duuf ci nag lépp du xat ci cin li. waaw kooku wax olof la wax nga ko sax nee nga <laughs> olof nee na. beneen yoon dañuy déplacé wu Télé Sénégal day déplacé wu ñëw ba sa kër. ci sa acca wax dañuy bàyyi rek micro bi ngay wax li nga bëgg a wax lépp nga wax. waaw kay. loolu dina la neex ba ni gërër geex. loolu dina neex. saf sàpp lay noonu lañ la koy defalee. mais nag boobaa aussi tamit sa sàkk yàlla bii nga may woon rek boobu ba léegi da ngay jéem a fàtt. ma fàtt ko waaw. ba ba ngay ñëw bay dem. booy dem ah, nga di ah est-ce que di nga am envie wax. non dina am envie wax parce que fàtt nga ko. mais ah. booy dem nga fàttan ko. ah d'accord parce que yow xam-xam bi nga yore nit ñi xamuñu ko sax. dégg waaw <laughs> ah, dañ lay dégg rek sa <laughs> euh, lees day man de du ko natt bu. déggal <laughs> ku am jom am fulla du ko natt. ndeysaan waaw. da baax. ah yaa ma raw foofu. incha lool nga bëgg dinañu la ko defal. te nga ko woon nit ñi sa mbaax googu. yow lu ñu wax nga ree leen rek dégg nga sàkk yàlla baa ngi nii. <laughs> noo tuddee sacré yàlla lan la nga noo sacré bon Dieu sacré bon Dieu xam naa ni bon Dieu bi moom lu la neex la xam naa ni waa neex na ma loolu ndax waaw kay yàlla moom lépp looy wax rek commencé ci yàlla wala nga daanee lef fab ko bés ni ki tey ndax dinaa mais seen caméra bii uh-huh. ni jàkk man waaw mel ni bët bu dijji boo xam ne nii uh-huh. ni mu ngi xullee <laughs> waaw neexuma dara dara dara dara déedéet ah, moom de mi ngi nii moom mooy tax nit ñi gis la dégg li ngay wax mu am solo loolu itam xam naa loolu waaye moom ki ko réglé waaw daf ma nennu incha allah léegi beneen yoon Télé Sénégal dina déplacé wu ñëw ba kër Père Lamine. vous serez les bienvenus bil ko micro bi mu wax li mu bëgg a wax lépp amul question sax kenn du la laaj yow yaay wax li nga bëgg a wax damay wax ba ni daana doyal naa su ma géexee. daana doyal naa nga déedéet du ko wax. soo wax ba ni gërër géex. waaw kooku kay doyal na ñu daal di tëj doyul woon doo géex. ñu daal di daal di tëj rek. jërëjëf Père Lamine kontaan nañ ci dalaloon la ci suñu plateau bi jërëjëf naa dañuy daan lay bàyyi nga daal di wax sa dernier mot euh, ñu daal di tëj ba beneen yoon incha allah nee naa la fii ne dernier moo bi du dara lu mooy ñaanal réew mi sunk waaw sa doom la te ni mu jàkkaarloog euh, ñi nga xam ne nii du mu leen tuddee noon mhm. mais suuxlukat yi laa leen di tuddee suuxlukat waaw mhm. du ñu gis Sonko mu baax ci fenn Mm-hmm. am na sax ñu dem ba léegi gannaaw bàkk yi nga xam ne jot nañ ko ko bàkke mm-hmm. lu mu wax ñu dendee la ko ñëw indi ko ci leneen waaw te yooyu nekku ci Sonko ku ñu yar la mm-hmm. Sonko ku xam nit la Sonko lu mu la wax dina ko respecté maanaam du naxe mbaay waaw bokkul sax ci politique am léegi nag dangay xool nit ki mu neex la u nga xool nit ki bañ ko bañ ko ba faaw mais ñu ko fi jiitu woon ñoo ngi fii te nekkoon nañ fi am na ñoo xam ne lañu daj ci taal mburu daju ko ci danañ xam moom métit yi nga xam ne tegoon nañ ko ko mu jàmbaaree lool fexe ba jàll ko waaw di continuer ñoom jàkkaarlook ñoom ci ay pexe yi noonu yi nga xam ne moom lañ ko mhm. lalal mhm. donc na réew mi am jàmm macha allah dëkk bi am jàmm parce que mhm. réew mi ak dëkk bi dafa wuute am na ñu bokk ci dëkk bi mais bokkuñ ci réew mi bokk ci dëkk bi bokk ci réew mi dafa wute yaa nuance ni ko français bi di wax mhm. na ñu bokk ci dëkk bi te mhm. bokkuñ ci réew mi am ñu bokk ci réew mi te bokkuñ ci dëkk bi mhm. donc je pense que c'est une grosse philosophie et une grande surtout ma bëggoon nit ñi ànd ak dal may taw féex kii di sonk ak Jomaay mm-hmm. mm-hmm. ñu jëme ñu fañ ñu bëgg jóge jëmee waaw mbégte rek ak yaakaar ñu am ci moom mm-hmm. yàlla bu mu tas waaye seeni pexe bu ko pexe noonu lal bu ko pexe moo noonu jiitu dañ leen bàyyi nañu xalaatee ñu doxalee ko réew mi léegi ngeen gis résultat incha allah waaw loolu jërëjëf kon daal mën nañ ne ñoom fañ ñu jëlee fañ ñu jëmee ko gën. bu baax d'accord danañ ko xaar. dàq foofu. incha allah am nañ ci yaakaar comme ñu jëmee non seulement gën na ko. waaw mais dàq ko aussi. allah yal na la yàlla dégg. yow yàlla na nga fekkee lépp. nañu am patience. incha allah parce que tubaab dafa ne la patience et la longueur de temps. Hmm. font beaucoup plus que force ni que rage. xaw ma nag ñoom ñi ñuy waxal ndax am dégg-dégg ci wax jooju ñuy wax wala déet. ñoom lu ñu d'habitude lu ñu lu ñu wax rek am nañ ci dégg-dégg. ah fa lii laa leen xam ni. waaw ñu toogaat xool. baax na waaye ñu bañ di yëngu ko yënguwaat. jërëjëf ak di yëngu-yëngu caaxaan yooyu nga xam ne dañ koy natt ci ay. te du ko jar. caaxaan. jaru ko te jaru ko. jaru ko nañ muñ. nañu liggéey lu bari daal tey wax tuuti. nañu muñ pour mën a liggéey. Mm-hmm. nañu muñ pour mën a appliquer ay décisions nañu muñ parce que muñ boobu mooy xaar ki nga xam ni nii. Euh, seeni pexe. Mhm. yeyoo na ko ngir mëtal seen bëgg-bëgg ci réew mi. d'accord mëtal seen bëgg-bëgg ci lu raw sax réew mi parce que li ñuy nas. Mhm. te nar ko buñ leen bàyyee rek fa ñuy jëmale. Mhm. fu neex la ci ñëpp. incha allah ñëpp dinañ ko bokk ku nekk am taw feex. incha allah jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax ci Père Lamine Ndiaye di ko ñaanal gudd fan ak wér surtout. Euh, dama koy ñaanal bu baax a baax. yàlla defal ko jàmm nañ ko bokk. gudd fan te wér moom yàlla nañ ko bokk. amiin waaye père amiin waaw waaye nag euh, kontaan nañ daal bu baax a baax ci dalal la. di wax ne am na solo lépp lépp di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan boobu léegi euh, di leen wax xam naa ci beneen numéro jotaay incha allah jërë ngeen jëf. incha allah.